ñu ngi siyaare bu wér a wér sëriñ bi di ko jégalu baax di ko masawu coono ci soññe bi muy soññewu lépp lu bëgg lu baax la rek ak bëgg lu baaxal dëkk bi ak ñun xam ne ñooy murid di sëñ Tuubaa bëgg lu baax si ñun moo waral muy soññee kon loolu soññee boobu bàyyiwul kenn góor ak jigéen mag ak ndaw ñun ñu xam si ni ñun ñooy sëni dëkk bi sax ñoo ci war a jiitu avant sëñ bi di ko tere ñun ñoo ci waroon njëkk a dox kon nag lii sëñ bi tere nañ ci ànd fekk see moom man de sëfoor waa yaakaar naa ba ma dalee dool ba léegi li sëñ bi tere lépp dama koy bàyyi lang naa dix ans ferme fukki at musuma tux cigarette musuma ko ŋàbbu soo ma ko yónnee ma bàyyi ma wàcc oto ba Mali Sénégal fu ne naa ko fa kon jàpp naa ne dëkk bi sëñ Tuubaa li mu fi tere nañ ko fi war a bàyyi li fi sëñ bi bàyyi nii Cheikh Abdou Lahad tënkoon na ko Cheikh Abdou Lahad tënkoon na ko sëñ Mountakha moom lay dellu di ko tënkuwaat ñun ñooy ñun nag ñooy ay ndaw lañ sant bi nii ëllëg ñun ñoo war a mën a yor réew mi comme mag ñu ni seen tànk fi ñu teg seen tànk ñu ndaw ñi fana ñu war a xool pour teg fa suñu tànk lépp loo xamante si nii mag ñi doon nañ ko fi def ëllëg ñun ñu àggale ko ñu bàyyi football bi comme que borom dëkk bi nee bëgg fi football ñun ñoo ko war a mën a jàppale si loolu. Euh, football bi euh, ndaw ñi ku ci nekk am na ci koo jógee koo xam ne ci nga soqe ko nga xam ne mooy sa waajur wala mooy sa kilifa ci kaw suuf euh, ginnaaw bu sëñ bi yilifee ñëpp. kër gu ne am na ku ko yilif maanaam kër gu nekk ko yilif am na ci part de responsabilité bu mag a mag a a mag parce que bu ci doxee nam ci war a doxee rek yaakaar naa dina bari na nag ñoo xam dañ naan gone yi amuñ kilifa waaye buñ nekkee ci jàmm ndax ko ci ñàkk nekk ci jàmm dañu kilifa kon ñëpp am nañ kilifa ku ne daal yaakaar naa bu say kilifa taxawee te nga déggal leen lu mel lu baree bari war naa mën a jóge ci dëkk bi xëy nag moom naqar na jubbanti waaw ndax yàlla moo nañu woon fitna la ci yéen moog seen àll waaye nag képp ku mën a doon war nga ciy jiim lépp loo man di ci góorgóorlu sa kemt lay kattan war ngaa def sa kemt lay kàttan ak sa njaboot ak sa nga tënk ko ci ndigali sëñ bi. ndaw ñi xam si bëgg nañ bal lool di ko fubal ci dëkk bi sëñ boobu ko yàggee tere dañ ko yàgg tere lu yàgg du jitu du fi du léegi nii léegi soñ ya tere boobu yàgg na mais nag ñi xam si dañ ko bëgg te mënuñu ko bàyyi na leen jar ñu gën dëkk bi dem seet fa def ko fa nit nag su la dee tere te liñ lay tere nga xam ne lii nii am nañ matuwaay bu ko mën a dindi fii da nga ko a bàyyi man de bokk man de jug naa ci ñi ko a bàyyi football bi itam dëkk bi sëriñ Tuubaa ngi koy tere bu baax xale yi koy def na amul leen njëriñ xale boo ci gis bu amee ñaari fan damm wala boo liggéey ndeyam di ko faji te loolu yëpp nekk ci ndigal ko gën nañu nekk ci ndigal ndigal gën a wóor lépp ñu ñuy bàyyi wati bon sol tubay bu bon xam di xam sol solun bi yiw xamante si ni fépp fu ñu mën a dem bokk moom laay wax sama morom ñi ni ñëpp ñu di ko jëfee comme que yéen yéenee mag ñi seen kàddu la ñu war a diglu ak sëñ bi amuñu leen lu dul sëñ bi sëñ bi rek lañ am te dañ ne murid nag ndigal jafe sëñ bi comme que wax ni li ñun ñoo ko si war a mën a jàppale